ne jàpp sénégalais di leen noggatu di leen kar di leen addu kalbe di nangu seen i alal maanaam daal ci façon fekk secteur privé yi nga leen di noggatu euh, di jël seen ay euh, xaalis loolu yi daal la bëggaan wax wax na ci yu bare bare nag donte ni nee nañu le siège day woote grand théâtre am na ñuy bind loolu nag ci journal waaw day dem grand théâtre am na ñu koy wax su ko neexee mën na koo def su neexee mu dem grand théâtre woo Sénégalais yi ñoom wala feneen fu ko soob ndax réew mi noonu la bindoo beneen bi nag bu fekkee ni noonu la demee moom ñooñ ñi ngi def lu ñaaw waaw bu fekkee ñi ñu dénk gouvernement bi noonu la demee topp secteur privé bi di leen arnaqué di nangu seen xaalis di ko di ko yóbbu comme noonu ñuy xamante ni noonu ñu def agresseurs yi loolu bu fekkee def nañu ko def nañ lu ñaaw xam naa incha allah ginnaaw woote na danañu leeral danañ wax niñ ko defee ak nan lañ koy defee bu ko defee ñun ñëpp ñu mën koo xam ba xam ne ñii ñu jiite si lii lañ nekk loolu daan ñu ngi koy ñaan mu gën leen a dénoncé mais si biir dénonciation beet mu indi ñu ay point xam nga laax bu ñu indilee point yi teg rek bu boobaa ñun dañ si mën a mooy si point yooyu jafandu si bu baax a baax ba du ñu daanu. point lan yi nga xamante ni noonu nan lañ ñuy arnaqué noonu la ñu nangoo sunu alal noonu lañ ñuy jaayee doole. ñu man koo xam jaayee doole secteur privé. waaw dama ne yooyu ñu wax ñu ko pour ñu mën see. bàyyi moo tax ma ne taabal ji yow su fekkee loolu mu wax yow gis nga ko ndax gaa ñi dañuy wër di nangu alalu xam nga man. waaw xam nga boo ne su fekkee am na rek. déedéet moom dama ne. Hmm. moom bu woo ginnaaw mi ngi woote nañ ko xaar mu woote moom mu indil ñu point yi pour ñun ñu xam ko ñun ñuy wax man koo leeralal askan wi wala ñu mën cee jaf na hmm? nuñ nuñ nuñ nuñ koy defee ñoom. non moom li mu wax rek laa la wax. moom loolu laa tontu nii di ah yow il faut nga xaar ko ba mu waxaat. waaw dama ne ko lii mu ñu wax nii. maanaam nan la amee ñu xam ko pour mën a dal ci kaw gouvernement bi. ah waaw maanaam mu saraa ko. waaw mu leeral nañu ñii ñëw nañ fi di jël xari jàmbur yi Fatick bañ fa demee jël nañ fa ñetti xar. Assane bàyyil xari ku la waxee xar. exemple bi dama koy wàcc. doo jël ex doo doo ko jël ci beneen anam. maanaam ni audit bi maanaam daaneel nañ benn waay jël nañ ci moom lii. bañ jaaree loolu koy waxut loolu de loolu koy wax nañ fay impôt li ñu wax liñ man maa koy fay kat ah, fayu ma loolu taxut muy wax loolu du arnaque a ci ñëwal loolu noonu du du arnaque du dara comme sa tey jii nit ko xam ne sàcc na alalu askan ñuy woo ko mu ñëw ñu nangu ko hmm. loolu du arnaque waaw ñëw ko xamante ni audit nañ ko jël alalam loolu du arnaque xañ na dama ne moom li nga xamante ni loolu lay wax laa si loolu nga wax hmm. xam naa bu ñëwee danañu indi argument yi leeralal ñu ko point par point bu ko defee ñun ñu mën cee jafandu d'accord xam nga pour mën a gën a wax ak askan bi pour yee leen ci lii nga xam ne noonu la gouvernement bi doxee te du yoon. Ah. waaw loolu nag. ñu ngi koy xaar ci point xaar ci point yooyu tuuti. te te di ko siyaaree nag bu baax a baax gis naa Baye Mbaye mii muy def nii di ko partagé que statut lu ñaaw la. lu muy def na nañu bàyyi jàmb Aminata Fall nga ma koy am waaye Baye Mbaye di ma ko am waaye ñëpp ngi ko windeel te du yoon. lan ci nañ nañ balool rek amul njariñ. lan ci. Hmm? lan. Hmm, bàyyi ko sareetu mbaam bi sareetu mbaam bi la toog Ousmane Sonko mi ngi yor toog toog ak sëñ Muntaxa nekk si kaw te moom moo njëkk seet seeti sëñ Muntaxa fan yii rek dem na fa si siyaare ji ko hmm. ah, loolu dañ ko war a génne. windeel ko Sénégal yëpp bu ñu partagé wala ñu estati ko loolu kay da ciy sant. déedéet photo bi saboté la. lu ci nekk sax ah du moo fa yéeg. non dañ koy saboté ndax ay reetaan lañ si def. <laughs> te kenn waru koo. non non mais loolu dara nekku ci. non non non non ànduma ci. non non dara nekku ci. waaw léegi kay waaw waaw loolu dara nekku ci dañuy wane ne moom jege na askan wi rek wax nga dëgg de. dara lu ci ne. waaw wax nga wàcce boppam Modou photo bi lan moo ci ne. waaw wàcce boppam ba dem. dafa wàcce boppam waaw lii wàcce boppam la wax nga ah. dëgg. lan moo ci ne. ñu wane sëñ hmm. euh, Ousmane Sonko mu sukk ci kanam sëñ Mountakha. Hmm. ñu wane Bougane mu ne ci saretu mbaam. waaw waa dëgg lu ne. lii kay day wane ni Bougane am moom yor nay 4-4 waaye wàcce na boppam ba mën a yëg ci saretu dafa gaare 4 ay soxlaam waaw di leen wax ni leen fii ngeen nekk fekk naa leen fa wàcc naa niveau bi ba ba tolloog yéen eh. pour ànd ak xam ne li ngeen nekk baax na loolu kay loo ci wax bàyyi mais da nga koo da nga koo tooñ rek ah, dama gis moo ko kon lu tax mu am ma ko di si dugal reetaan kay moom ma jaaxaloon aywa